mu ngi ci biir commandement bi commandant bi ñu di ko enquête. waaw convocation bi euh, du ma sax lu may jàpp lu may leer lay doon parce que avant-hier nuit dama toog ba ay minuit wala minuit mooy moom maam góor mu ooma jëkk ma oo ci numéro privé après moom mu ooma ci numéro boppam mu uyu ko bi ma ko uyoo j'avais vraiment peur parce que boobu dama jàppoon sax ni xëy na dafa ñëw ci koñ bi am fi jafe-jafe wala dara parce que tam koñ ba ma dëkk muy néew saat euh, wax dëgg yàlla. ni ma leen joxe cër noonu nañ ma joxe cër mu ni ma yow sama grand ma ne ko waaw lu xew mu ni ma dañ ma dugal TikTok di ma sayute ma jël numéro bi yóbbu ko cybercriminalité mu génn si turu doom bu ñuy wax Cheikh Thiam ak numéro ma ne ko sama doom mu ne waaw ma ne ko non non moo ku ñuy wax jaara ma ne ko man de awma doom bu tudd Cheikh Thiam mais xam naa peut-être El Hadj Thiam nga bëgg a wax maa ngi dégg nag baatu ku jigéen ci gannaaw moo ko naan waaw kooku la ma ne ko te sama doom boobu de amul portable buy filmer loolu man leer na ma ku amul portable buy filmer filmer wul mënul dugal TikTok kooku mënoo dem cybercriminalité euh, cybercriminalité ñu def ay recherche bay génne numéro wala ñuy génne turam te bu ñu doon génne tamit turam dëggam taan la ñuy génne mi moom du Lamine Dieng mais moom turul Cheikh Thiam ma ne ko mais quoi ak lu mën a xew. mun naa ma ne ko yow xam nga xel ni man du ma weddil sama doom parce que xale yi kenn du leen weddil dara li ma leer nag mooy filmé wul mais ndax wax na ca wala waxu ca moom mënuma ko weddi parce que jaara boobu ngay wax mook ñoom ñoo toogoon ci bureau ba nga voté yow wala boog fa mu woon ñoo toogoon ñu filmé la mu wax ca dara nag mun naa ma ne ko loolu man mënuma ko weddi mënuma yow sama mag nga te jàmm rek la ñu mës a seq bëgguma di yóbbu sa doom police ma ne ko yaakaar na loolu duñ ci àgg mu ne ma ni ngay def nag mooy nen moom na ñëw ak xale yi mu àndaloon ñu filmer leen ñuy weddi ko wax kan moo ne seen gannaaw mu ne ko loolu mënuloo ko am man sama doom duma ko jiital muy ñëw nga di ko filmer di ko dugalaat TikTok mu naan diwooma yónni ak diwooma yónni te fekk kenn yónniwu ko loolu affaire xale képp la li ma man mooy guddi na mais bu ma xëyee suba danaa laaj sama doom su ma laajee sama doom mu wax ma dëgg gi li xew lan la man danaa xam ban réaction laay def su jaree corriger danaa ko jar corriger su jaree baalu danaa baalu su jaree leneen danaa danaa ko danaa ko def mu kon baax na man su ma xëyee danaa xam danaa def lu ma xam ma ne ko baax na loolu lépp na xëj na comme jaral na ko ñëw ci yoon itam ci kanamu yoon lay li lay jaar man ci dëkk bi laa dëkk du ma tooñ fi laa juddoo fi laa yaroo xam naa yoon du ma faral itam sama njaboot mais nag maam góor ak i bokkam ak ku mu yaakaar mënuñu ma xoxotal mënuñu ma xoxotal yoon rek moo fi nekk bu sama doom defee yoon dal ci kawam bu sama doom deful ma jël avocat ñu dem ci yoon ba lu ñuy yoon may rek ñu jël man lépp ci loxol yoon laa ko bàyyi gënumaa dëkk ci dëkk bi du ma tooñ nag te bëgguma ko tooñ te sama doom bu tooñee dama ko naan baalul parce que da nga tooñ waaye moom moom tooñu ma ko te baaluwu ma ko te lii bàyyiwuma ko ci loxoom parce que moom du def du dindi du tëj du tijjee li mu man mooy yóbbu ci yoon lu may yoon may rek ma jël lu mu laaj it ma jël mu dee mu may seetaan ko dégg moo bokkam baaluwu ma ko tey baaluwu ko suba bàyyiwuma dara ci loo xam ci loxolu yoon laa ko bay lu mu laaj rek ñu def ko. El Hadj sama rakk la te man magam chaque jour ñooy ànd ñooy nekk chaque jour papam bii nii sama sama papa la sama xarit la sama morom la lu nekk laa koy mais aussi ñun xaaraa xaaroon nañ beneen euh, réaction si maam Ngor bu doon maam Ngor bu njëkk moom moo def lii sax du garaaw mais maam Ngor actuel bii nii ñu ne moom dafa dem ba bëggoon doon leader Tëngéej. moom mu bëggoon doon leader Tëngéej waxatuñu moom mu dem ba ne actuellement on dirait que nee nañ conseiller la yooyu noonu yëpp am na ñun mënuñu concevoir moom mi nga xam ne moom moo war a régler Tëngéej war a kii jeune ñun ñëpp ay jeune lañ te àdduna bi ñëpp ay juum même donte bu dee am na raison du nii la ko waroon a mën a fajee wala di téye booy di tëjëg a tijji man nag man ce que j'ai à dire mooy que ne maam Ngor man dafa maa bet ndax bu fekkente ne euh, même le président de la république jëm boppam dañ koy xas bari na ñu ko xas bari na ko saaga nit ñi tamit. ku nekk leader war nga xaar si lépp loo xam ne war nañ laa xas ñii di la saaga ñii di la sànni ay xeer mais war da nga war a am benn forte mental boo xam ne war nga am mental de fer mais je pense pas que ne moom li muy woote chaque jour si leader yi te mu koy wax ak ñoom noo loolu nekkul ci moom. ñun nag li ñu am pour wax si mooy métti nañ trop li mu def gi kii xale bu ndaw la juum na waaw xale bu ndaw la waroon na mën a demee neneen daal lu dul ne dañ koy jël teg ko fii depuis ce matin ba léegi ñun ñii mënuñu si dara justice mooy def li nga xam ne mooy mais Mame Ngor moom lii moom waru ko woon quoi. du benn nit du ñaari nit bu doon benn nit la ko def wala ñaari mu neex mais presque jeunes yëpp la tëj yóbbu leen presque sax mënu mënu si dara mënuñu tëj ñun neen dañoo yóbbu teg si yoon quoi dañoo yóbbu teg si yoon parce que mënul tëj kenn fii lu dul yàlla neen la mënul ñu dara dara dara amul lu mënal booy booy bi baax na jub na nekkul si lenn warul di taxawaal warul di fen dafa demoon di seese kon moroomam ñu fa nekkee woon xam nga weex dunku rek ñu moo tax ñu dugal te booy macha allah amul nit lu xew lu mu koy waxal du dugg si yëfu jàmbur amul leen lu dugg si moom maa ngóor ma mu neen dafa bëgg suñu maire waa pare tëj booy xanaa moom bu yore maire bi de ñun ñëpp lay boole tëj. yéen en tant que xaritu xaritu El Hadj Thiam euh, bu Mame Ngor bàyyiwul nan ngeen ci fas yéene taxawee. Mame Ngor day bàyyi parce que ñun tooñuñu ñaanuñu ko tooñuñu defuñu dara day ba parce que boo amul dëgg dangay ngay ba fii dëgg dëgg dëgg fii fii dëgg moo fi nekk fii kenn dekkul fi kenn papa kenn nekku fi yaayu kenn nekku fi dëgg moo fi nekk xam nga wax ji du mën a neex na parce nu mu def dafa ñaaw moom moo waroon taxaw si jëm boppam ñu def dara mu ne déedéet mais am na ay topp si ginnaawam ñun lu ñuy wax du génne am na naafiq yu te binduñu El ñu ko xamee lañ ko bindee loolu dëgg El Hadj dëgg simple la yor vidéowul kenn vidéo ko loolu dëgg loolu am lu ñu wax xam nga métti nañu trop métti nañu trop ba pare bëgg a jël loolu mënul nekk c'est impossible suñu ñu duñ ko sànni ko xam ne